mbiri Pape Alé Niang journaliste d'investigation source a gis ne procureur contre ñëpp la jamono yu kap di mbootaay bi ëmb mbooleem association de presse yi ci Sénégal di sakku ñu bàyyi ko moom Pape Alé Niang nu mu gën a gaawe ONG trois d it naka noonu ak ku ci mel ni soxna Aminata Touré ak Ousmane Sonko yéene kaay bi ne moom procureur génne na benn bataaxal bu mu tuddul sax benn yoon turu Pape Alé Niang waaye di ci dànkaafu ñi xewal fan yi mu ne di dal ci kaw kuréeli takk der yi ak kaaraange gi ci réew mi te mu ngi ci xamle ni daan ko faj lu mu laaj enquête ne presse bi ñoom benn benn dànk lañ def ci weti Papa Alé Niang ngir ak njàppale waa CAP di mbootaayuk association taskati xibaar yi sàkku ñu bàyyi ko ci di fàttali état bi la ko war ci wàccoo constitution bi rawatina ci article 8 ak 10 yi garanti yelleefu jot ci xibaar yu bari te wuute le quotidien gis ne procureur ma ngay yokk moom ci xar mi karaw jàppe kàddu yi Papa yi ay cong yoo xamante ne yu wéeruwul fenn la yuñ dul nangu benn yoon yéene kaay bi di réew mi moom ci jàppuk Papa Alé Niang ak jàppin wi di ci laaj ana lu waral xobe gi gi nu ci boole yoon indil ñu ay leeral ci section de recherche bi mbaal ci diwaanu Thiès ñu fa doon yëngu ci wàllu xaalis bu bon yéene kaay bi ne Cheikh Issa Ndiaye ak ñi ci lëngaloon xaaju guddi la ñu bàyyikoo ndakaaru àjjuma ji ñu génn wutali diwaanu Thiès ak billet noiru dollar ak euro valeur u un waa section de recherche daal di leen infiltré maanaam daal sërëxal kenn seen biir ñu jàppe ko ab laveur di ko doon setal billet yi ca loole moo leen sànk ca Mbour 1 lu jëm ci wàññik dund gi wàllu luyaas bi Sud Quotidien ne aji luyéey rafetlu nanu ko lool waaye ak naatable nag lanu ci boole ndax borom kër yu ñuy tiit ñu daw gaaw gaaw yokkaat lu yaas bi nanu ko ni defee woon atum 2014 ndax état bi nga xamante ne da caa boole woon ak ceetaan na ko noonu ak ñàkk topp njiit réew mi moom président Macky Sall ci Sharm el Cheikh ci Égypte ci laas ci kaw ubbi teg ndaje mi nu fa jagleel luy sawee jaww ji ci àddina ma nga ca naan moom président Sall faaw ay jëf ngir sawee àddina bi ci boppam ci la Soleil moom njiitu réew bu Sénégal di njiitu Union africaine di fàttali réew yi posene ne ñooy la gën ji tey climat bi ci l'info président Macky Sall di ci xamal réew yu naat yi ne wartu noo ne ci jamonoy digee waaye jamonoy jëf ngir sawe àddina moom njiitu réew mi nag di it wut la ko sowe fii ci Sénégal ci wàllu communication le vrai journal ne ma ngay daas tëralin yu bees ci wàllu communication ñeel gouvernement bi ndax ba fii dafa am ñenn ñu jàpp ne foofu la ak cooxeem ne yéene kaay bi jàpp ne it nag ma nga cee am ak tan ci wàllu woowu ndax jamono yi waa booram nanuy ay ayloog Ousmane Sonko bañ koo may dara dañuy des ak président Macky Sall ak directeur général bu AGETIP mi ci lu leer ne mooy mbërëm ngir 2024 di lu ñu jàng ci yéenekaay bi di direct news El Hadji Malick dafa jàpp ne li waral mu waxee ni président Sall dafa liggéeyal lu bari Sénégal ca mu ne faaw ñu gunge ko ngir mu yeggale coppite xar kanamu réew mi mu jógtee observateur mel ni ku naan ko na ca boole rek le borub Sénégal bi diis lool ndax yéenekaay bu groupe Futurs Médias dafa jàpp ne diis na lool daanaka wees na rëdd wa UEMOA rëddoon jamono yi borob téeméer yu jël juróom-ñaar fukk ak juróom yu am am bi bàyyi ko ci réew mi wàllu làmb la ñuy jeexale ginnaaw ñaar fukk ci carrière Papa Sow jël na retraitam sunu làmb ak record ñooy ñi dogal la bu mu jëloon nag laata muy sëgg ak Siteu Siteu mi koy xamal ci yéenekaay bi di sunu làmb ne ku am wekk respe gu mat sëkk la ci moom Papa Sow carrière bu riche ni nu ko waxee ak ñaar fukk ak ñetti victoire naka noonu juróom-ñeenti défaite Siteu moom ginnaaw ndam li ci kanamu Papa Sow yéenekaay bi di sunu làmb ne jël na yoon wa ca bokk na ci ñi nekk ci kanamam ne ay adversaire Lac 2 ak tafaatiin